ñu am mbégte niñu leen koy dégtalee àllarba bu nekk seen émission face à Pape euh, tey nag euh, ñu am fi gan goo xam ne Sénégal yëpp ku ràññee mu nekk kilifa ci réew mi nekk kilifa tamit ci àddina bi ndaxte moom mooy jiite parlement bu CEDEAO di président bu parlement bu CEDEAO Euh, mu di Moustapha si selo nekk vice président à l' assemblée nationale ñu fas yéene ko dalal ngir mu gindal nu parce que coow li bari na trop lu bari ñu ngi koy yëkkati di wax euh, jëmale ko ci moom moom tamit moom kàddu yoo xam ne da koy yëkkati di wax ci réew mi nu muy doxee ñu am mbégte euh, di ko fi dalal sëñ Moustapha maa ngi lay jox kàddu gi nga nuyu mbokku téléspectateurs yi. jërëjëf Baye Ale maa ngi lay nuyu di la ziare sunu ko lëre yàgg na xamante nañ bu baax a baax a baax. li nu xamante lépp euh, ci dëgg la ak ci réew mi soxal ñu euh, may siyaare it euh, téléspectateurs yi nga xam ne ci àdduna bi ak ñi nga xam ne peut-être bu ngeen ko defee ci réseau sociaux yi site internet yi danañ ñu suivre mm-hmm. di leen siyaare di leen balu àq ndax des fois xëy na ma wax loo xam ne du ngeen ko bëgg surtout ñi nga xam ne samay soppe lañu mbaa su may ñi nga xam ne gisewuñ ko noonu di wax leneen mm-hmm. mais seen groupe bi it aussi Euh, ma beral leen loxo siyaare leen euh, ndax ni ngeen di gere équilibre yi. di may ñëpp euh, ñu wax fi te ma am fi ay doom am fi ay xarit. yoo xam ni comme Pape Birahim Touré ak ñi mu nekkal foofu laaj ci yem di siyaare Bougane moom tam suma rakk. Euh, su ma wëllëre la boo xam ne bi jàmm la ñu seq junni bay bokk ay xarit kon maa ngi lay nuyu di la ziare. jërëjëf bu baax Moustapha lu tax ñu ne lu tax Moustapha Cissé Lo fan yi ñu gis ko mu tàng trop kàddu yi muy yëkkati assemblée nationale day tàng di wax ne réew mi dañ ko war a teg ci yoon lu tax loolu. waaw xam nga Pape euh, nit ñi euh, li seen problème mooy dañ dul interroger histoire. Mhm. histoire buñ ko interroger. Euh, danañ xam ne Moustapha Cissé Lo xaarul ba nekk ci pouvoiru Macky Sall a tàng man dama judduwaale tàng dama ko donn ci samay maam bés bu ne ma wax ko kër Matar Mbaye Khoudia Gueye laa bokk ngéenu Matar Mbaye Khoudia Gueye deret ji ñu yor dafa tàng ma bokkaat ci ndaat Fall bokk ci ay guerrier maam Kumba Fall maam Borse Jaleen mhm. Amari Ngoone foofu laa bokk sama maam yu bari bari ci teen lañu faatu ak i bal deret jooju ñëw ma laal tuuti nag ci eh, ndaam ak Louga di sëtu Matar eh, sëñ Louga Birane Awa Sarr xam ne alxuraan ñoo ko indi ci réew mi eh, bi loolu do nekkee it xam naa suma temperament moo tax bi ma nekkee ci administration ONCAD ma nekk ci ñu may yilif daawuma jubook samay kilifa jàppante naa ak ñoom ba tey ndax bu ma gisee lu ma d'accordul rek damay fippu bañ loolu moo waral loolu nga wax ma ànd ak président Macky Sall ndax boo interroger histoire bi may toj assemblée fin 2007 2008 ba Ablaye Wade di ma dàq tey ñi may saaga feeñu ñu woon mbay Ndiaye laa ci xamoon. Mhm. xaw ma ci keneen man maa porté woon combat bi di xeex ba ñu gêné Ablaye Wade mu dàq ñu injustement. dégg naa sax seen benn collègue mu ne dañ maa fay. waaw na waaw loolu. danañ ci dikk waaye dama bëgg def rek jeunesse bi beneen bi am solo mooy Macky Sall bi ñu ko tuumaalee moo gënoon metti mhm. yow yaa ko couvrir police centrale. maa nekkoon ci kanam ak sama jabar ak samay doom ak Mbaye Ndiaye Badara Cissé ñoom mais ñiy coow di wax naan wéy Moustapha Cissé loo demoon na bay dem ak demul ak yooyu mais ñun kenn xamu leen woon man mosuma leen a xam ci APR ak ci politique. je le dis très honnêtement wër naa Sénégal gépp ak Macky Sall gis nga même cassette yi tey ji am na ku ma envoyé ci Alaaji Baara bi ak Kaffrine 2010 bi ñu demee ba oto yi panne maa nekkoon même mécanicien bi donc yooyu fàtte daf fi xajul kon bu ñu ñëwee xam ne bon gouvernance lañ doon prôné sobre et vertueuse nu dem ba ci biir xëy na Macky Sall loolu la bëgg mais troupe yi mënu leen a canaliser ba am ñoo xam dañuy profité ci xeex bu ma xeexoon te bi may xeex nekkuñu fi di fab alal ji di pasar pasaree di yàq di duma ñi sosaloon Macky àndoon ak Macky Sall sos parti bi sama tension day dem quatre-vingt-dix degré ma gisaat sama bopp dellu ci démb malgré li may nekk vice président. ñu ne lu tax Sall kon. déet Macky Sall lu ma ko wax ma benn wax bu ma ko wax boo xam ne war na ko déranger eh, wax ma ko ndax doone Macky Sall akate ma parce que. aw ma ñu ne kenn xàmmee dégg naa ñu ne danga ne kenn xàmmeetu ko. mais atti loolu du xam nga Pape Ali yow boo dee suma xarit wan ma cofeel par exemple ne nu demee buñ gisantee kafante rente bokk naan ataaya bokk naan kafe ba mu yàgg nga tëj sa portable ci man tëj sa bunt ci man waxook man buñ ma laajee dama naan xàmmeetuma ko ndax kooku sama xarit loolu la doxalee ak yow waaw ak ñeneen man mii noonu la doxalee ak man noonu la doxee keneen recevoir la audience def dara ñaanuma sax audience peut-être ci niñ koy waxee ndax tooguma fi mais dañu war a am contact direct dama ko amoon ak moom amoon numéro boo xam ne dama ko ci joxe message muy tontu mu ma ko soxlaa gis ko mais bu ma demee ba mën a toog trois mois du ma gis président du ma ko dégg du ma xam ci moom dara du jéem a xam bu déggee ne sax Moustapha Cissé Lo wax na nangam du ma woo ne ma Cissé Lo bul wax nangam sañ na ko wala kaay ñu wax lu tax nga wax nangam mais damay xam damay jàpp ne dafa am lu ma jàppal bu boobaa bu ma ko mënta gis nag dama koy envoyé lépp rek ci biir rajo beeg télé beeg fépp rek fu mu ko mën a déggee baax na. lan ma a indi loolu ci moom. xaw ko loolu nag laa koy laaj loolu maa ma bàyyi ale mënu ma ci tontu ndax gisuma ko man trois mois yi gisuma Macky Sall bu ma ko gisee ci télé laa ko gis mais nag dama defe ne loolu warul mën a ne koo xam ne ñoo doon bokk di fanaan cib oto di daw ba bët set. li ma wax di lekk sandwich yoo xam ne ñaari day nëb sax dañ koy sànni ak i pom ndax togg duñ ko gis sama jigéen Marème Faye moo nu ko yónnee ñu lekk ca leen la boo amee ke day mujj yàqu dañ koy sànni ndax coono buñ def ci àll bi ndax yéene woon mu falu yaakaar ne moom moo gën ci réew mi loolu moo ñu ci dugal léegi nag bu demee ba mu falu ànd ak ñoo xam ne ñi ñoo ko doon saaga jox leen post yi gën a baax mhm. jox leen ndaataa talax yi bu ñuy mayee may leen bu ñuy sarax sarax leen ñun duñ ñu sarax duñ ñu may mais kon dañu dañu naan d'accorduñ ci loolu. mais yaa yaa ngi yaa ngi xas transhumant yi na leen di leen beral loxo mais yaa xam mbay wax na ne yow transhumant bu mag nga déggoo nga PS dem PDS ñëw APR. mais dama ko assumer pleinement bu dee transhumant mooy nga bàyyi ab parti. gisatu beneen parti waaw gisoo ci sa bopp kon transhumant la. mais man bi ma transhumé gêné wu ma ñi ma fa fekkoon. parti socialiste dañoo dem ba mu am problème. man fa ma dëkk mënuma opposé ma dem ba ci Ousmane Tanor Dieng yàlla nañ ko yàlla fayal ma waxtaan ak moom ni ko damay bàyyi ndax Touba mu ne su faa damay ànd ak ab lay wat ndax Ablaye wat ñoo bokk Serigne Saliou xeex na li mu xeex du ma toog di ko gêner bi ma ñëwee neewuma leen nañ ma jiital ba ma ñëwee sëñ Bara Dolé noonu président fédération bi bul ko fàtte mhm. section lañ ma jox numéro un mooy secrétaire général bi Fallou Mbacké nekk secrétaire général bu fédération ndax moom lañ fa fekkoon ma nekk secrétaire général adjoint liggéeyal leen liggéey bu rafet ñu fal ma falaat ma booba ay PDS nga mais maa leen ëpp valeur ndax xam nañ ni ki gañe chambre de commerce te gagné ko ci politique gagné woon xeex 98 ba nekk député titulaire ci ñaar maag Ibba Guèye kooku am na mbooloo mu mu topp ginnaawam loolu laa def léegi bi ma ko defee. beneen bi nga wax ndax Ablaye Wade moom daf maa dàq xam nga bàyyiwuma ko bi mu yoree pour te naruma ko woon a bàyyi yëpp loolu mooy dëgg ci mais Macky Sall amal problème muy doomam ñu nekk ci xeex. ma gis ne c'était injuste Macky Sall deful dara. tooñul y avait Karim Wade ak groupe pour li ñu doon wax. li ñu bëggoon a dévolution monarchie bi ma bañ. mu dàq ma te bàyyiwuma ko daf maa dàq ndax ab Ablaye Wade dafa ma ji teraanga moom itam wax naa ko. moo ma jëkk a may vingt million di ma joxit màggal gu ne cinq million ak cinq tonnes ceeb awa géey kebe la ma boole loon ba mu yàgg Pape Diop menn maire xam na li ma wax mu ne ko dee ci teg cinq mooy dix tonnes ku mënul dara danañ la jox loolu loolu laa nekk ak moom ba ami problème jéemoon na ma bañ a dem mais erreur bi war a corriger rek dama dégg ko toog wax ci benn rajo ni moom fekkee na bi ñuy waxul dëgg boole mun nga woo Aïdara Sylla wala Babacar Gaye Aïdara Sylla ma jël si ni ma wuyul Ablaye Wade booba Macky Sall sax créé gul parti booba moo yor président assemblée nationale bi mu ñëwee mu bëgg ma convaincre pour ñu xeex euh, euh, Macky Sall ma ne ko duma ko def ba muy dem nag la ma yóbbante ni ma neel Macky Sall na ñëw jox ma sama yëf man maa ko wax Macky Sall. wadd moo la wax ne neel sal Sall. na ma jox sama yëf lii kay mën nga ko laaj bu ko fekkee keroog bi ma génnee. effectivement ndax waa ji dani bi ma génnee maa ngi yëngal samay loxo Babacar Gaye moo ni kii xamul lu mu bëgg maa ne ko bu ma xamul lu ma bëgg it du ma nangu li ngeen wax du ma xeex bi ma génnee ci bunt bureau Sissoko du ma xeexi Macky Sall ndax deful dara mais booba parti amul ba ma naan na dam na Ablaye Wade nee na du ma ko jox deux cent millions maa ngi Ablaye Wade mosu ñoo wax waxu xaalis loolu ay faux débat la moo tax du ci tontu. Mhm. Euh, gos bi ko wax na dem wax ak ñi mu war a waxal du ma wax ak moom xam na li mu wax maa ngi moom tolloowuñu niveau boo xam ne. ba tey yaa xam ne ne doo membre fondateur euh, APR. waaw mais kooku it nag bàyyi àll bu mu bu mu yàq nag yow tam yow xam nga ne bi may xeexal Macky Sall. am na lu ma ci fekkee waaye déedéet yow yaa enregistré booba yaa xam ñëwul foofu police yow tam. Mhm. maak sama jabar ak Mbaye Ndiaye ñoo fa ne gisuma fa yaa xam. le le 10 décembre 2011 congrès bi. Mhm. yow yaa ma jël mani la avant ñuy dem congrès bi mani la man maay lire résolution bi fu yaaram yaa xam nekkoon. journaliste bu neex tubaab la mais kenn désigné wu ko man Badara mbay Mbaye Ndiaye rek amoon droit pour gisuma fa sax yaa xam ndax organisation booba moom man far ba ngoom far ba moo yoroon organisation beeg lépp ca zone booba defar na ko na mu gën a rafete maa ngi ko ciy félicité waaye ñi ñu joxoon nag droit ñu wax modérateur bi Badara Cissé la woon li may wax man nga dem ci archives mm. ñi nga xam ne seen résolution la muy les Sénégalais de la diaspora Mbaye Ndiaye ko liir mais résolution bi investir Macky Sall man lañ ko jox ñas ñooma nga fa woon loolu euh, man nga koo génne ci archive yi kon lu ci des du ma ci tontu bi ñu ñëwee décret yi ñu njëkk a man la ci comme conseil conseiller cabinet président Mahmoud Saleh Ndeye Marème Badiane mhm. Mamadou Talla moo nu fekk si après ak Imam Mbaye Niang mais les premiers décrets ku bokkul ci mandat fondateur du ñu jëlu pouvoir te xamoon nañ ne man bëgguma nekk foofu assemblée laa bëggoon a dem donc loolu duma ci tontu ndax nit koo xam ne xawuma la ci parti bi te dégg naa yow nga toog yaa jëkk a terroriser dévolution monarchie fay Sall waaw ndax bi mu amul post loolu la commencé wax loolu la commencé wax di sànni xeer kon tey buy wax day wut position beneen bi mooy nekkoon na chargé communication président xaalis bi ñu ko doon jox ñu mu ko jox na ko expliquer jot na fa ay millions yu bari yu ñu ko doon jox pour gérer presse bi. da daan ñëw di ko jël xam naa lu baree baree bari ci loolu kon kooku awma lu ma koy tontu. Hmm. déedéet awma lu may wax ak moom. awma ak moom lu ñuy wax ndax xawma base politique am te élection local yi ñu jëm dina xam ne amul base politique ndax Dakar lay wote. parce que nee na tamit defe dina am Touba yëpp yow yaa ko. waaw mais loolu passé naa Touba Touba du ma ci wax Dakar laa bëgg a nekk maire bi je serai candidat te moom ma nga dëkk plateau moom de du nekk maire plateau moom. moom moom waaw d'accord mais est doon candidat. maire de Dakar. man xam nga Macky Sall gisuma ko muy damm loxo kenn ni ko doon nekk candidat bu ko doon def élection bi passé mu def ko te fu ne am nañ fay list y compris bi ma jiitee Touba ay liste yu bokk ci ay moom. di ay hmm. député def nañ ko. man daal listu APR lay défendre gis nga ko toujours col gi may sol day niru APR APR la ci lay dëkk Macky Sall lay jàppale mais bu jàllee nag wut loo xam ne dañ koy jox keneen. du ma bàyyi koo xam ne kii gënumaa yeey ci parti bi defu ci dara mu koy nekk mu koy jël loolu rek la du leneen mais Macky Sall moom lu mu bëgg ma bàkkoog moom waaw léegi euh, Moustapha euh, da nga waxtaan euh, wax ne ya mafia bu am ci wàllu arachide bi ma bëgg ñu dikk ci lu tax nga wax loolu mafia bu am bi après ñu dikk nag nga leeral ñu poñ par poñ ci li nga xam ne moom la la yaa xam mbay jiiñ lu tax nga ne dafa am mafia ci arachide bi yaa xam li mu wax lépp day ci waxul dëgg ab fenkat mais lu tax nga ne mafia bi ba pare ma bala maa wax loolu day fen li mu wax xamu ci dara xamul sax gerte lu muy demee bala maa wax mafia dama koy corriger état mësuma jox ab marché gerte amul marché ak ñebbe ak engrais ak mhm. pas pastèque bi muy wax amul marché man du jënd loolu dama am sama GIE amul njaboot ñuy bay di sàmm mu ne e bi amul sañ GIE sëñ Moussa Basiru kay day bu ko waxee moo tax man la fen yi bari na na dem xool bu demee impôt et domaine bu Jurbel dana xam am naam déet xanaa ab GIE man de sama GIE moom réglementaire na ndax day fay patente di liggéey et c'est reconnu GIE boobu nag bu dee moom ñun dañuy liggéey ci gerte ñun mille 2015 2016 lañ commencé def gerte première participation mille et quelques tonnes lañ am mille cent tonnes ay notification ndax gouvernement bi ministre bi mooy def renseignement prix bu amee prix yi ba pare yi ñu homologué mooy seet opérateur yi mu yaakaar ni war nañ ko mën a jëndal gerte ñi ngi ci secteur bi mu xool quota bi mu distribuer ko bu ko distribuer ay opérateur la koy distribuer man opérateur la tey opérateur yi fi nekk xam ne ñoo gën a kawe ñoom bi may def gerte ñoom xamuñu luy gerte xamuñu ko maa leen ci jëkk 14 ans laa nekk président de la chambre de commerce d'industrie d'agriculture am ab GIE dëkk Touba di commerce di jënd gerte di jënd ñebbe am ay magasin sama magasin bi may defee gerte million 8 millions 591 laa ko jënd ku dem da gis ñuy jënd gerte ka jaay. kon bu état boo xam ne ci laa bokk ne dafa bëgg gerte jiw sañ naa ni man am naa gerte wala sañu ma ko loolu laa wax. ni ko Maodo Sarr di defe ni ko euh, euh, ki defe kii euh, suma mbokk bi Cheikh Bara Gueye bu Touba di defe Moussa Seck bu Koungheul di ko defe foofu ak ñeneen ak ñeneen Aliou Diagne ñoom ñooñu ñëpp bu ñu sañee dem ñu jox leen këyit ni leen jaay ñu sañ naa dem laaj mais liñ ma jox bu doon daa ëpp ñi ci des coow mën naa am mais ñooñu liñ ma jox par exemple mill yi ma la tudd boo demoon année boobu ñu def audit bi danga gis ne ñoom ñenn ñi cinq mille tonnes lañu leen jox ñenn ñi sax sept mille wala leneen engrais it ñi ko fiy def bariwul engrais bi man maa gën a tuuti la lañ ma jox mille tonnes lañ ma joxoon ndax gis naa mu bind ne trois mille tonnes wala quatre mille cinq cent trente et un une tonne engrais day fen li mu wax dara du ci dëgg parce que pastèque bi mu wax waxul dëgg ndax man 1000 pots laa jo laa leen jox 1000 pots yi 9 million lay jar. 3000 tonnes d' engrais jotoo ko. déedéet 3 dañ ni ma naa leen ko wutal loolu mooy naa leen ko wutal. Hmm. fi mu toll maa ngi 1000 tonnes yoo xam ne fay naa ko ba pare jënd naa ko mais mille tonnes laa joxe ci engrais. ñebbe nag jotoo ci 600 600 tonnes ay ca. Euh, mille tonnes waaye da nga il faut nga wax engrais bi. moom xam nga déjà dangay ngay ay fenam nañ dem vérifier ko ndax déjà fen ak sos sosal nit di yàq deram du dëgg mille tonnes lañ ma jox kayit. notification. ni ma na ñu ko wutal. campagne baa ngi jeex mille tonnes laa jox la lañ ma joxagun 2000 joxewuma ko nu mu koy bindee ci yëf yi. ñebe 500 tonnes lañ ma joxoon notification joxe naa ko mais dafa am ñu ñu jox kayit ñoom te amuñu ñebe am na koo xam ne 20 tonnes lañ ko joxoon amul ñebe man la joxu kayitam ñaar sax ñu am 20 tonnes ak ku jot di tonnes ñooñu maa ko jël dimbali état bi ndax ñebe jooju programme spécial la woon lenn li parce que bi ñu demee ba nawet bi nawet bi sooxi dañ ne nañu wut variété yoo xam ne gaaw naa ñor. Burkina Faso laa jëlee ji ñebbe ji la ma ciy am lu tuuti la mais du marché damay jaay sama produit buñ ko jëndul woon keneen jënd ko neexaluma leen ci bu dee loolu buñ buñ ma joxati notification mais daa gëwuma ne notification yi dañ koo war a jox benn group léegi danga koo war a laaj yow woo ko ni ko na wax ñaata lañ jox Maodo Sarr na ko wax na wax luñ jox Aliou Dia il faut mu wax ko Cheikh Bara luñ ko jox. ak ñeneen na ko na la na indi liste opérateur économique yi. parce que dégg naa nga ne am na ñoo xam ne sax duñ opérateur économique ñu leen di jox affaire engrais. ki am na am na am na ku yoroon 1000 tonnes boo xam ne man la ko doon jaay bërki démb rek wax naa ko assemblée nationale dama ko ni jënduma. ay footballeur ay footballeur sax dégg naa ko ci de. am na am na ay internationaux yoo xam ne bu ñu seetee audité danañ xam ne jox nañ leen. mais loolu vraiment mafia la. ah man daal loolu laa wax. waxuma leneen wax naa ko mais koo xam ne liggéeyul ci euh, mbay Moustapha waaw lu liggéeyul ci mbay ñu mënu la jox loolu xam na jaaduwul teguwul ci yoon loolu du bon gouvernance en tout cas ñooñu du li dafa am ñoo xam ne ñi ci gerte gi ñu subventionné ñoom dañ leen ciy jox te amuñu tool xam nga ko am tool yow bàyyi ale boo soon ba am tool ne damay bay dëkk ci dëkkub àll mën nañ laa jox mhm. lu tolloog loola ndax dañ koo subventionné mais bu dee doo bay xam ne sa tool mi ngi café de Rome comme ni ma koy wax <laughs> boo paree foofa ngay dem ji fa xaalis bi da ngay woo opérateur bi Cheikh Mbacké loo ni ko woy man am naa dix mais différence bi laa bëgg nga jox ma ko man soxlawuma gerte gi mbaa engrais bi awma fu ma ko suy jox ma noonu looloo ci bari ma loolu tax ma demandé ñu auditer affaire bi xool ñi ñu koy jox mu dem ci ñi nga xam ni ñi wax dëgg yàlla ñoom dañuy mbay moo leen tax a jóg sëriñ su mag yu xam ay tool yu gudd yaatu am na te duñ leen jox benn doom fekk koo xam ne dafa rëyu làmmiñ yor ab ab ab ab ab aw kéem ci internet bi di dóor ñu jox ko bañ mu wax loolu ça pose problème il faut que ñu auditer ko seet ko ndax président dama bëgg mu am ndam président du yëg loolu xamul nu muy demee moo tax ku naan président mais président dama ko war a éclairer ndax avant may ñëw. combat boobu wax naa ko ndax man daaw 1700 tonnes gerte laa joxe mille 1700 gerte gu rafet. Bambey gi maa leen di jox. gars yi opérateurs yi koo ci ni demal mise en place pour jox baykat yi day daw ndax loolu da ngay jënd gerte yóbbu mais buñ ne laa bàyyi aale ñaa ngay jox ci gros producteur da koy jël parce que mën nga toog ah bàyyi aale ni ko ah waaye bàyyi aale daal man lii laa la mën a jox xam nga bàyyi aale aw kayit rek lañ ko jox. Mm-hmm. loolu nag seeni xarit lañ koy jox man joxuñu ma ko loolu lay dénoncé loolu laa d'accordul ndax benn sàcc amu ci parce que ak état bi danaan soixante-dix mille tonnes jën naa ko subventionné naa ko kuy bay mën naa la cee jox loolu lay wax nit kay wutee nag ay justificatif am ba ni moom baykat la buy fen digganteem ak yàlla waaye man li may waxaat ndax dafa wax loo xam ne accusation te day fenn waxul dëgg na ma génneel benn doom bu ñu ma jox ren bi ñuy joxe na ko génne ndax dafa wax ni. samay mbo samay mbokk 430 tonnes waxul dëgg day kàcc li mu wax na ko génne dara du ci dëgg je le défie te damaa bëgg journalam ñëw bi nga xam ne soleil la moomul journal bi dañ koy fay nee na journaliste la dafa war a transparent mais warul jël ay journaux ki xaritam bi ci publier lu ko neex te nekk directeur national amu ci droit gannaaw daa far dafa war a génn ci journal boobu ñu dàq ko moom ndax day nax Macky Sall ndax li muy wax lépp day fen envoyé naa Macky sal li ma doon def ci ay xaritam yi ko mën a jox ndax copier naa te dinaa la jox not ci loolu man li ma jox état lépp lu leer naññ la nañ audité la ma waxoon parlement CEDEAO laay wax bu dee kay dama ko jox samay mbokk ak samay xarit na wax mbokk ya xarit yi ñan la loolu mooy wax bi mun mel ne da nga benn liste producteur quatre-vingt-dix-huit personnes. te ñëpp loo lañ sant loo day kàcc day kàcc na ko génne il n'a qu'à publier ça samay mbokk yow bokkuñu ci dëkk bi ñoom waruñu leen a jox bu ñuy joxe je ne crée te li mu wax day fen dama ni lool ça n'existe pas il n'a qu'à publier ça gannaaw dañu am na na ko publier. nee na yor na ay kayit. mais na ko day fen kayit yi mu yor mi ngi mel ni kayit yi mu wax ci engrais bi notification lañ koy jox. ñëg ko jox xam naa ko mais li may wax je persiste et signe ment day kàcc li mu wax du dëgg mais lan moo indi loolu yëpp. Ah, xawma ko problème am ndax yoo li mu dugg yoonam nekku ci manoon naa bañ a dégg lii bu dee nag daa nekk ki dealer yu koy monte muy nax président ndax bëgg poste yu gën a kawe ñu ne xam na Macky sàll bu ko moywul ci biir kàmb gi la jëm ndax gëmul Macky Sall dynastie Faye Sall moo ko créer même biñ ko dàqaatee commencé woon na di génne ba ñu koy jox soleil yeneen ay wax rek ko gëmul yàlla mais amul ñaari nit fii amul ñaari nit ci Dakar moom ñaar ñi gën a tuuti li muy wax na arrêté man du ma moroomam na wuti moroom bu bëggee moroom. mais temps yi dafa mel ni si diggante dafa ñagas lool ak saw gaawu APR yi lu xewal. xam nga APR euh, malheureusement li nu dal lu metti la. muy lan ñetti at lañu xeex ñëw ci pouvoir. Mhm. gaa yëpp defe ne ñoom mën nañ dara am nañu base. te base dañ koy wuti ñuy positionné wu man nag bu ma waree jàppale sama waay damay xeex rag ba dugg bu vocale pour hmm. Macky Sall loolu laa def ci campagne bi wax naa leen ko 327 millions def naa ko ci campagne am 60 kon am nga xaalis demal seet samay compte bu ma amee xaalis kay xanaa xaalis bi suulu ma ko tey boo waroon compte yi ma am muy ñetti compte benn bi seen CNCA la ci lay liggéey benn bi CBAO la compte bu yàgg yàgg la benn bi UBA la moom laa ubbi pour assemblée nationale ci lañ may viréel samay salaire boo defee cumul la fa nekk bu matee dix million nga jël lépp may naa la ko xanaa suuluma xaalis bi awma compte extérieur aussi te li ma liggéey man CEDEAO rek li ma ci liggéey bi ma ci nekkeek léegi hmm. ñu fay ma ko légalement boo ko seetee bi ma nekkee vice président ak léegi jege na milliard kon waroon na maa am xaalis huit ans liggéey naa ci lu mat jege milliard tuuti la manque milliard ndax mandat président parlement bi li ma ci liñ ma ci fay ci yoon ak i indemnité mat na cinq cent millions bële ëpp na trois cent millions. kon foofu nga may xaalis. yow boo may laaj loolu nee naa la sama magasin bee huit million cinq cent avant dévaluation laa ko jënd fi may def gerte ci digg xolu Touba kër googu boo ñëwoon jox ma deux cent millions du la ko jaay mi ngi ci wetu kër sëñ Cheikh Sidi Mokhtar. newuma la bi may dem Amérique ak di jëndi oto di ko jaay oto ku amul xaalis doo ko jënd man oto occasion mais fi may toog di wax ak yow awuma oto bàyyi àll. amoo oto mooy lan. oto oto. oto yi amoo oto. oto am naa ay oto yu occasion oto bu tolloog sama gaay xam nga gars yi maa sa waa jooju di di wax di ma attaqué ci boor bool ay oto yi quatre-vingts millions ak cent million la ñuy war. waa jooju kan la ci. benn waay bu dëkk fii ci di te dëkk Fuuta rek lu mu bëgg. <laughs> Farmago waaw oto oto quatre-vingts million lañuy ñuy war man man est-ce que moom moo ma war a gën a jàll ci sol yor euh, oto quatre-vingts millions man oto bu ndaw bii lay war ñëpp xam nañ ne awma oto j'ai pas de véhicule Macky Sall moo ma abaloon benn oto ci campagne bi sama doom boobu Cheikh moo jëloon xarañ di ko ci yóbbu. Mhm. muy pour mu defal. président oto ba accidenté mi nga fee. oto bu ndaw bii ci la boobu muy 4x4 boobu boobu ma yoroon ba léegi Macky Sall buy mayee oto kay man la war a jëkk may ndax maa moo ma daan fanaan ci oto yi buñ gaayam yépp amee ay oto 80 millions 100 millions ami kër yi milliard ndax sama ngóor si ma la wax këram gee boo ko neex un milliard du la ko jaay moo ma gën a jàmbare wala moo ma ci gën a yàllu nee na moom ay ay kii lay lay lay lay jot ay ay commission ak ay dóor martu ndax moom benn ministre dañoo dóor te xam na sax numéro billet ñaata milliards lañ dóor booba loolu nga ko war a laaj woo ko ni ko yow da ngaa dóor te da wax dafa war di leer waroo di taqal ay gor. mooy comme li ñu def Moustapha Diakhaté naan cent millions c'est pas vrai je je persiste et signe Moustapha Diakhaté yoreelul assemblée un seul centime barki Cheikh Ahmadou Bamba wax naa ceeg le grand frère Toudouane ma ni leen bu dee Moustapha da leen koo yoreel Niass yoreel na leen xaalis Doudou Wade Abdourahim Agne. Aïda moo du Diagne Fada ak même ka ko wax ndax commission yi am na lu ñu leen di jox parce que ab commission doo tegub secrétaire teg fa président commission mhm. te amul lu muy jënde kayit lu muy doxe leneen président groupe bi di convoqué groupe bi ñuy ñëw war a toog réunion léeg-léeg mu woote Moustapha Diakhaté woote na lu bëri ci ay réunion de mise à niveau ak de formation mhm. te ñun cotiser wuñu xaalis boobu kay ci la ko def kon pourquoi ñu toog ba parce que géré na groupe bi kenn mësula ŋaaŋ ni Moustapha Diakhaté ngi def lu dul dëgg tey ñu toog accusé ko ma ni leen leeral leen ko leeral leen ko bu dee daa détourné kay ñun complice la ñu war a doon ndax Mamour Diouf man maay doon deuxième vice président bi mu fii ne tey may premier vice tey bu ay maire ñi ngi demoon maa ngi koy saluer au passage ci clairvoyance bi nga xam ne ndax boroom xam-xam la moom lay doxee groupe bi bu coow amee danañu woo waxtaan hmm. maa ko mag tuuti fexe ba ñu bin bin mais teewul y a des problèmes à améliorer ndax wax naa ko ni Abdourahim Agne dafa nekk koo xam ni man fu ñu tuddee groupe parlementaire sama xel dem ci moom ndax da daan fexe ba dal am équilibre yi am dal kon bu Moustapha Cissé Lo dee alerte bés ci bouton bi ni ay eh, c'est rouge dañ ma war a woo ñu bokk wax ci mbir mi après qu'on trouve une solution alors on va faire une petite pause euh, ba pare nag dellu siwaat continuer ak sunu gan